jërë ngeen jëf mbokki internet ye dalate leen nag jàmm si seen seen bi di live Dakar 221 ngeen di abonné bu baax a baax le 17 novembre lan moo nar a xew le 17 novembre nar a dugg ci taarixu réewum Sénégal boobee rek le 17 novembre tombeek vendredi mën na na rek ci la waa CEDEAO nar rek addu ci mbirum kookee di Ousmane Sonko ba xam das koy lett wala dañ koy féeri moom kookee di président Ousmane Sonko amoon i jafe-jafe étape Sénégal ba taxoon rek nu saisir li xam ne moo di CEDEAO boobee la kuréel boobale atte nag kookee président Ousmane Sonko ak ay ñu ànd sa am yaakaar bu baax a baax na danañ sa jëlee la nga xam ne moom moo di ndam boobe la ndam rek ba tey fekkante ne na Ousmane Sonko amee na sa ndam ndax état bu Sénégal dina appliquer boobe la ndam loolu tamit xel yu bëri ña ngi ñaaw li nga xam ne di ndartu ndax jàpp na ne CEDEAO lim fi joxe ay dëgg lépp rek état bu Sénégal mosu appliquer loolu nag ba euh, tey xel ñu bëree bëri moom di président Ousmane Sonko di bi jafe-jafe nekk si liste électorale bi ak rek partem bi nga xamante si métier na rek daa doon nan koy tas mu doon metti ñu bëree bëri ba tax na rek mbooy yëpp ban ko ñu dem ji ay ñooñam ay partisam ñu yegg si Pastef ñoom li leen gën di nag récupérer li nga xamante ne rek moo di ab fiche de parrainage bu leen may ñu seen dem élection yi 2024 way leen tey abonné di partager di like video yi baax baax